théâtre kat bii di Bass Diakhaté te nag ñu miinan ko loolu fii ci Sénégal moom moo génn àdduna ñu ne tey jii ci fajar ji gannaaw bi nga xamee ne kon dafa feebaroon te sax ñu hospitalisé ko woon ay fan a ngi foofale ci hôpital Bass Diakhaté nag nekk na koo xam ne marqué na bu baax lii di eh, théâtre bu Sénégal ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljana journaliste bii di Salif Diallo nekkoon chef de service euh, des sports ca agence de presse bu Sénégal te génn àdduna euh, altine ñu ne moom nag jébbal nañ ko mam euh, démb fële ca Wélingara nit nag yu bëri demoon nañ fa lu si mel ni ay mbokk ak xarit ak sax ñoo xam ne dafa bokk dafa bokkoon ak ñoom liggéey kon demoon nañ daal gunge ko ci li nga xam ne moom mooy këram bu mujj. police bu Sénégal nag dañoo teg loxo lu toll ci cinq cent quatre vingt et ci ay euh, nit gannaaw bi nga xam ne nag dañ doon amal ab opération de sécurisation ci guddik euh, lundi 31 octobre jàpp mardi premier euh, novembre ñu jàppee leen nag ñu si bëri ay mbirum vérification d'identité ivresse publique et manifeste nécessité d'enquête détention usage et trafic de drogue vol association de malfaiteurs détention d'armes blanches ak yi ni mel imam Ahmadou Makhtar kante moom nag mu ngay wootee jàmm ci jamono joo xam ne eh, suba ñu ngi xaar ngir kii di Ousmane Sonko eh, ñu déglu ko ci mbir mi nga xam ne moo nekkoon ci digganteem ak Adji moom daal nee na kon que ñëpp d' nañ si ne li nga xam ne moom mooy audition bi dafa war a am eh, mu ne daal kon ñëpp nañu ànd ak dal te ku nekk daal am say jël say responsabilité mu ne nag kenn warul sax di woote ci ay fitna nee na nag kon bu fekkee ne sax juge bi décision ba mu joxe. moom hmm. euh, xam nga ne kon gis bu joxee décision dina am ñu mu ñu ci ànd ak ñu ci mu ne loolu nag warul tax kon kenn di woote daal euh, ci li nga xam ne moom mooy violence mu ngi ñaan nag yàlla sàmm euh, lii di Sénégal. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Nigéria foofu nag gannaaw bi nga xamee ne doomu woykat bii di Davido dafa faatu. gannaaw bi mu daanoo kon ci ab piscine ci piscine ba nekk ci kër ga sax ñu ne nag waa police ba dañoo teg loxo lu toll ci huit personnes ñoo xam ne dañoo nekkoon kon ci personnel ñu nekk foofule eh, ca kër ga jee jooju nag mu ngi am ci jamono joo xam ne sax Davido ak soxnaam kon ñu ne nekku ñu woon ca kër ga kon dañoo génnoon ci seen ginnaaw kon la loolu amee ñu ne xel ba daa daanu ci pisim la kon lab jaaree fa eh, dee. trente unième sommet bu ligue arab ba su tey bii dina ubbi fële ca eh, capitale bu Algérie di Alger ay njiitu réew nag yu dëkk yu bëri kon war a koo teewee eh, ñu ne nag am nañ si bëri ñoo xam ne nag ñoom dañ ko teewee dañ leen di représenté wante nag loolu terewul daal ba li ñu naan këram ba eh, daal attendre nañ ko maanaam am nañ daal eh, ay présidence yoo xam ne war na tax ñu tàmbale boobule sommet kon ba ba tey bii foofu la ci Alger ki nga xam ne sax moom mooy secretaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres invité nañ ko sax moom sax ñu ne kon yegg si na foofule ca Alger. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg Égypte mi nga xam ne fi mu nekk nii nag euh, ñoom euh, ñu ngi waaj a dalal euh, lii di COP 27 ñoom nag dañ caa invité lu toll ci fukki njiitu réew bokk na sax seen invité nag kii di président bu bees bii di. bu Brésil di Luiz Inácio Lula da Silva nga xam ne kon sax euh, dañ koy doog a far rek ci bopp réew ma mu remplacer fa ki nga xam ne moom mooy Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro moom nga xam ne sax moom daal bilangam ci wàllum daal euh, environnement dañ dañ dañ dañoo jàpp ne daal kon euh, baaxul ñu fay xaaree nag kon kookule di Lula da Silva ab porte parole nag bu Lula moom le na ne daal kii di président Lula. mu ce xalaat wante nag euh, waxagul waaw wala déet ndax dina teew ci boobule euh, sommet dañ koy jeexal ak xib beneen xibaar bitim réew kon ak président turc bii di Recep Tayyip Erdogan moom nag xamle na ne euh, li nga xam ne moom mooy trafic ci mer Noire tàmbali na kon tambali tàmbaliwaat nañ ko ba bésub tey bii ci mercredi bi ñi nga xam ne nag ay bato yoo xam ne sax dañoo chargé woon céréales ukrainien xam nga ne dañoo bloqué woon foofu le ci. port ya gannaaw bi nga xam ne nag Moscou dafa doon laaj ab garantie bu yooyule eh, batom li leen tey ci ay xibaar seen taw li leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf